suñu mbokk yi 24 actu dal ak jàmm ci li gën a fës ci xibaaru semaine bi 5 septembre 2021 bés boobu yaakaar naa ne kenn du ko fàtte fii ci la ñu am ci naqar actrice muy génnu àdduna Double muy ki nga xam ne mooy baayu Balla Gaye ak Sa te ñu ràññe woon ko ci sport maanaam làmb Double Less mu ngi faatoo fële sa këram nga nekk Kër Massar. kii di baayu Balla Gaye nag dafa feebaroon lu yàgg ba doomam bu jigéen boobu bàyyi ay yitteem ngir taxawu ko ñu koy ñaanal rekk suuf oyof ci kawam waaye ba tey rek 5 septembre di bésu ñaar ràkka yi Cheikh Bamba julli woon ci bureau gouverneur sa Ndar ci année 1895 diggante boobu nag bari woon ay jaar-jaar waaye rekk dimaas bi passé moo nekkoon 47e édition di xewee fali sa Saint-Louis at bu nekk ba tey dañuy jàll ci suñu mbokku guinéen yi benn fan ginnaaw coup d'état bi amoon sa Guinée te daaneel seen président Alpha Condé ki nga xam ne mooy naa colonel Mamadou Doumbouya daal dinay dalal ci altine bi ñeenti ñu nekkoon ay responsable ci institution bi waaye tamit ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci gouvernement bi mu nekkoon ndaje bu am solo xewoon fële sa palais ministre institution ngir rekku ci am caabi wala kayitu oto bu gouvernement bi mu delloo ko waaye tamit ki nga xam ne muy Mamadou Doumbouya daal nay wax rek ne képp ku bokk ci gouvernement boobulee te teewoo ci ndaje boobu rek daan ngay def li ñuy wax acte de rébellion mbokk yi jërë ngeen jëf loolu mbokkoon na ci li gëna a fës ci xibaaru semaine bi dig daje bu beneen yoon jërë ngeen jëf